sëriñ Cheikh Fatma gaynde yaay Fatma sëriñ Cheikh Fatma sëriñ Cheikh Fatma gaynde yaay Fatma musuli say jaloore gaynde Fatma ndax yàlla Cheikh Mbacke di sab diwal ma way man gontu naa la jànku naa xam fekk yaa di góor ma góor fi yow te naa la ay sandar yaa tëdd yaa tëggin am teraanga yaa ñàkki tuuma yow amoo yàggaw ci soxla waa Kajoor ak Saalum Gànnaar ba Fuuta ñépp naa la maalum doo fàtte fàtte loo doo fut gëdde te yaa nuy woddu yàlla na say ba ñépp xëy ne koddu walaay baa bu doon tere ami bañ doo gis ku bañ Seex Mbàkke mbaa koy fëñ yër fay soppeem ba tax mu bombe jot fa biiri noonam ya bari fa njombe xayul fu sew musula jëw du wax miin te foo ko jëw ñu caw la kon nee leen xutbul waraala mooy dogal di atte la bayta wuy si naa la bul ma fàtte nee naa nërëm yëmit atte pey bii nee naa na raw ci yow dem na faraas ya mbàkki yaa di gann foo yendu foofa mel ne daaru jann mboolem sa xëjji bopp yaa ngi xaajaan xëccoo ñoo ki xoj lii du